tur bi lan la. Moussa Gueye dafa mel ni fii yaa fi njëkk a voté moom. waaw ah, incha allah waaw yor ngay teel a ñëw kon. Ah, dama teel a pour voté si pour ñibbi rek incha allah. Hmm, voté nga ba looy wax nag léegi nit ñi pour jàmm yooyu. voté rek si jàmm ak ñibbi c'est kër. Hmm. jërëjëf. ah yaay moom yow voté nga ba pare. voté naa ba pare bu baax. ah yow da ngay a ñëw bon. waaw teel ñëw teel woote teel ñibbi. looy wax ji pour nit ñi nekk voté ci jàmm dellu ci jàmm. teel ci jàmm nit. rek nañ ko def ci jàmm ci jàmm. Hmm. daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf. Hmm. naa ba pare waaw. waaw léegi nag de. ah taw bi dara dafaa gën neex rek. Eh. waaw. Eh. dafaa gën neex rek. Mhm. yaakaaroon dina yàq dara ci liggéey bi. taw xéwal la. taw. Eh. na taw ba biir ba ba ba ngoon jot. Mhm. teewul nit ñi noo woote. Mhm. parce que nit ñi noo soxla woot bi. dëgg la. jërëjëf yàlla na yàlla defal jàmm ba lépp terminé si jàmm incha allah waaw ayca kon mi ngi noonu Habib euh, kon ni mu la ko waxee rek gis nga moom taw bi moom tey jile euh, dafa daal di sëpp fii nga xamante ne mooy école bu euh, Goxu Mbaaj waaye nag teewul ñun moom suñu liggéey ñu ngi koy wéel ci fi nga xamante ne mooy école Goxu Mbaaj nag askan bi ñu ci bare dañu génn daal di tàmbali nag lu jëm ci wàllu liggéey bi kon ñu dem ci beneen bureau de santé Habib Seck jërëjëf liggéey bi rafet na Ousseynou Diop ñu bàyyi la nga wéyal ko du ñàkk di nga duggaat léegi Ibrahima Kane ñooñu ànd ak suñu gan imam Makhtar gis nga ko léegi mu di ay image vote ba fële ca diwaanu Saint-Louis mm-hmm. mu mel ne nag Saint-Louis